Ni def rek mooy euh, daal di enchaîner ci suñu rubrique entrepreneuriat ak euh, Fatima Baro ma bàyyi la ndey xaar. merci Assi mhm. alors madame Fatima Baro Ba tey yow la invité waat fii ci plateau bi muy suñu suite émission bi ñu doon def keroog euh, yaakaar naa keroog ñi ngi yemoon ci dossier d'air bi. parce que waxtaanoon nañ ci yow say activités yi ngay mënee ci sa mouvement parce que bu ñu fàttalikoo moom mooy présidente femme.

ci loolu lépp lu fi programme président Macky Sall teg lu ñuy def ba askan bi xam ko mun ci jëriñoo ci loolu la ñuy yëngu suba ak ngoon. Mm. di leen wax ne eh, DER bi ñun bi ñuy commencé suñu édition DER bi commencé wuñu woon ak DER bi parce que DER président Macky Sall mu ngi ko créé juste après. ñun commencé nañ di sensibiliser nit ñi ci question yu bëri. Mm. mais DER bi bi mu ñëwee dañ gis intérêt bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci. Mm. ñu ne pourquoi pas ñu intégrer DER bi comme population bi ñoom soxla nañ information ci lu jëm ci financement parce que président mu ngi ko tuddee délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes le mot rapide nag bu ngeen ko gisee ci biir mooy dafa nekk loo xam ne population bi soxla nañ ko mu gis ne population bi kat soxla nañu ñu yëpp ngi am ay projet tey ñii ngi ci liggéey ñii amuñu liggéey ñi ngi am ay projet yo xamné ñu ko bind sénégalais ko feug nee na la sama projet mi ngi nii président Macky Sall nag bi mu ba xool ne lii population bi doon na loo xam dañ koy soxla mu teg fi délégation bi jël trente milliards féetale leen ko ne leen amul ku bokk ci man ak ku bokkul ci man képp kuy sénégalais ku am projet indil leen financé leen ko bu ngeen xool defee étude bi ngeen xool ne projet bi c'est un projet porteur ngeen financé nit ki am na nag à part projet individuel yi dafa am loo xam ne dañ ko tuddee autonomisation mooy groupement de femmes yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi nekk ay groupement de femmes yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci ci ci seeni liggéey képp ku ci am projet na doon ay groupe de 10 yoo xam ne groupement yi ñoo koy formé ngeen def seen liste à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ngeen déposé ko foofu su ko fa automatisation c'est automatique groupement de dix yi koy jox dinañ présidente yi ñu jox bi bu ko ñu dem a gën ci cadre boobu le DER euh, jóg di femmes les jeunes parce que gis nañ Sénégal jeunes yi na li ñuy ñaxtu ah président Macky Sall ne pourquoi pas ñu def fi lo xamné ne jeune bu ci am projet porteur bo ñëwé ñu accompagner la financer la té du doon lo xamné financement kese la mais day am suivi am accompagnement. waaw Légui euh, da nga am question. alors euh, ñu ngi leen reprocher aussi ci vois DER euh, que euh, ñi ngeen def choix ci bénéficiaires c'était c'est un peu politique par rapport ak financement bi. parce que comme je l'ai wax rek comme ñun mouvement la boo des promotions mm-hmm. dañuy def promotion ñun qui ñu ngi ciy yëngu yëngu mais groupement de femme ak foo munta nekk ak foo munta bokk man de loolu man ah, groupement yi nga xam ne ñu ngi leen di accompagner ñu dem di déposer man gisuma ci appartenance ñoom sax seen bopp maa ngi dégg ñu naan boo ñëwee tey am benn appartenance wala en tête parti politique wala dara dañ lay rejeter sa dossier parce que ñoom ci transparence la ñuy dox képp kuy femme koo xam ne liggéey moo la tax a jug ak foo munta nekk boo leen woowee nga ñëw dem déposer dañuy jël sa dossier tey jii tey suñu pla paré woon ni plateau bi nga ne ay femme ñu ngi feulé ginnaw xombol mhm. damay juk jël sama samay auto dem fa sensibiliser leen won leen canevas ñu ñëw déposer mhm. si déposer bobu ñu déposer dinañ bu financement yi bu génnee dinañ leen ci financer accompagner leen mhm. kon appartenance amu si ku ci bokk ak ku ci bokul yépp boo indee sa dossier dañ lay financer bu soobee yàlla. li tax ñuy wax naan appartenance yi ci mooy. Mhm. dañu gis ne ci bëree mhm. ci responsable politique yi la ñuy jaaree. Mhm. pour mën a bokk. waaye bu ñu demee déposer seen dossier ba noppi ñëw jox ko responsable politique bi wax ko ni ko ñun. dugal nañ suñu dossier bi ngi ni parce que am na ay gox yoo xam ne si ne ni mën nañ koo lim bari na. tey boo demee Mbaaw ñu ci bëree bëri am na siège yu fa nekk. yoo xam ne ay siège APR la. responsable ya fa nekk. ñom ñoo wo nit ñi ne leen kaa leen ngeen defar seen dossier duggal ko mhm. waye ñun ñu appuyer leen mhm. kon peut-être que xeyna fofu foofu la naan ci keuy bi amu ci waye ñakoy appuyer mhm. ay responsable politique ñoo nekk ci ginnaaw deug la deug la euh, madame Fatima Ba bu loolu passé man dama bëggoon xam est-ce que yow actuellement ni yeen yeen a gis seen bopp ci financement bi est-ce que yow say femme mouvement jot nañu bénéficier wu ci 30 milliards yi nga xam ne moom le président de la république tek ci table bi pour financer projet yoyu waaw di di gën expliquer rek di wax femme action pour l'émergence c'est un mouvement national. ñun amuñu femme bu bokk ci ñun. ñun képp kuy jigéen koo xam ne am nga projet bu nga financement dañuy dem ci yow. def la plaidoyer defal la promotion ba nga am une idée de ce que c'est la DER. ñu fexe nga bénéficier wu am ci dossier ñëw déposé démb rek ñu ngi ma woo Touba benn gox boo xam ne mu ngi ci ginnaaw Touba. ki fa dem di dafa dem noonu par hasard di parrainé bim démé demee mu ne mu woo ma mu ne ma fii xamuñu lan moy DER mosuñu ko dégg. ma ne ko ñoom wax leen ne ñun dinañ ñëw def déplacement ñëw wax leen luy deer indil leen canevas yi ñu inscrire si ñu fexe ñoom nu ñu déposé gaa am na ay responsable politique yoo xam ne sen gox dinañ fexe accompagner seeni femme ñu dem déposer. Mhm. mais DER mun naa leen wax né transparence ñom mom lañuy ñuy prôné. Mhm. képp kuy femme képp kuy responsable politique mën nga dem déposer fa man bima commencé sensibilisation yi ba tay dem na ci femme yu bëri yo xamné déposer nañ ñu ngi tok di xaar amul nak di jël sa téléphone di woté naan samay femme fu ñu toll amul lool ñom ñëpp lañuy ñuy liggéeyal ñëpp lañuy jël en charge.

bi mbuur bi ñu ko fa defee am na femmes yoo xam ne maa ngi leen di nuyu au passage bi ñuy ñëw bokkuñu fenn te ñoo feesaloon salle bi. bi ñu ba expliquer leen li di doxee lycée CMU di doxee ak réalisation président Macky Sall dañ ne ne kat ñun ñu ngi si won si liggéey. DER bi bu ñëwee ñun dinañ ci déposer mais li ñu soxla mooy suivi ak accompagnement. bokkuñu fenn nag mais li ngeen ñu wax doy doy nañu parce que ñun demuñu di demee marron beige ñun président Macky Sall lépp lu mu fi teg population moko mom du marron beige ko mom du parti politique moko mom

te lii du lii du population bi ñoom ñooy laaj xaalis bi anamu fan na toll ndax génne na wala déet. waaw euh, seen question boobu foog naa président Macky Sall def na fi lancement DER Diamniadio mhm. am na ñu ci jukki ñoo xam ne jël nañ benn 10 milliards jox leen. ñoo xam ne dañoo toog jot SMS comme yow ak kii ak kële ñu ñëw ñu 10 milliards yooyu ñu financé leen ko. fi ñu toog fa leen jot seen SMS fa leen 10 milliards yi fa lañ leen ko joxee am na ay femmes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci géej gi. am ay jeunes yo xamné affaire artisanale lañ ci def jël nañ ci mais 20 milliards yi ci dess ci famille la jëm ci autonomisation la jëm ak projet individuel yi nga xamné nit ñi am nañ ko mm-hmm. lolu moko ko tax d'accord en tout cas merci wa parce que ñom instant bi ñu ngi tollu ci euh, récupérer dossier yi